dalee na ci am mbokk internet yu seen njariñ TV daal di wax ci kilifa di Landing Missane Seck moom nag nee na ji di Ousmane Sonko dina lak ñu bëri euh, ndax nak ay révélation le def mom Landing Nisan Seck ñu gën koo xam ci kilifa nena nak jamono ji nga xam ne ñu koy tek loxo moy jamono ji gëna metti ci dundam muy ap confession bo xam kilifa def nako ngir témoigner rek ci leader bu Pastef di Ousmane Sonko jamono ji mu nekk Ilimani jëwriñ ji ginnaaw nag ba muy traverser ay période yo xam metti na lolu ci dundam ci régime Macky Sall artiste bi nak nga xam dañ ko nommé PCA bu Grand Théâtre nationale di ñëwaat ci relation actuelle entre premier ministre ak moom bi nga xam ne nag da koo jàppale bu baax ginnaaw ba bañ ko accusé ne dafay def àllub escroquerie nduj njaaj nee na bés boobu nag jooy sax def naa ko ci kanamu adjudant bi bu ma fàttali ko nee na tontu bi nga xam ne adjudant bi nag tontu na ko ak ndax man mi dama amee nag ay nduj njaaj par la suite nak lañu garder de très bonnes relations lolé nak le kilifa dal di reconnaître ci audition bi néna nak ay mu nek ay recommandations yo xamné dafa jóge won ci kaw kilifa nag ñëwaat na ci affaire bu justice ak yi nga xamné mom moy juge bi jël responsabilité dal di koy libérer ak répercussions yi nga xamné ne moom mee dal nako mais nak muy wax tamit ci nomination bi nga xamné ne suscité na ay réactions. mu ne nag koppar yu bëri nag proposé nañu ko ko ñu fi nekkoon ay autorité mooy ci jamonoy Macky Sall ngir nag mu écarté Ousmane Sonko kilifa nag yu am ay révélation yoo xam ne def na ko ñu ko am nag maanaam ay koppar daal lañ ko doon proposé ngir mu wan ginnaaw ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko moomule mu bañ ba tëdd moonte de régime bi passé ñu bëri ñu ngi leen di tuumaal ne dañu doon jagleel koppar bu bëri ñu bëri nag war a mën a war ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko wante nag moom bokku ci benn yoon